bi fooru woon bu baax mooy que mhm. ni Déthié Fall jamono ci ñu toll nii ci fichier électoral yi yëkkati na ci ay mhm. kàddu di xam ne ni daal durée bi leen jox maanaam euh, trente jours yi dafa mhm. euh, dafay tax du ñu ko mën a saytu maanaam euh, réviser ko mën a réviser xool saytu ko mu ne nag loolee rek dafay daal di wane njuuj njaaj bi nga xamante ni jamono ñu toll nii état wu Sénégal jug na ko ngir rek mën a njuuj amal ay njuuj njaaj élection présidentielle 2024 yi ñu jëm moom nag ma ngay daal di rek di sàkku ñu gën a lu jëm ci fichier électoral électorale yi ak durée bi nga xamante ni may nañ leen ko. d'accord mais gis mhm. nga xaaral man fichier électoral tamit Déthié Fall foofu li mu souligné. Mhm. am na solo parce que man mii déjà bëgg naa changer de vote. Mhm. depuis. depuis jamonoy 2012 Thiès laay wootee. léegi man maa ngi Dakar. man mënuma laa fàttale ban élection laa gëj dem voté 2019 su ma juumul laa gëj a voté. te présidentielle la woon ñaata élection ñoo jàll ci ginnaaw. léegi man bëgg naa changer lieu de vote. vraiment léegi est ce que am naa temps man dem ba Thiès wuti wuti ni ñu koy dee sax euh, non fii normalement fii laa ko wutee mais est ce que su ma ko wutee fii nii genre certificat de résidence ak temps lay am tamit parce que suñ ko ubbee fii noonu au moins dañu may fii ba ba kañ. ba ba ba ba août wala septembre sax au moins. waxuma sax fichier électoral mais xam nga mooy sama problème bala ngay wax ay waxu fichier électoral. révision nga xool ay candidats. Ah, nga xam ba xam yow sax yow bu sa lépp mate yow kan nga war a voté ndax ñi nga war a a nekk ci langue gi yëpp man moom xam kenn man mii sax damay ñëw samp xaaral Macky Sall par exemple sampagul mais ay ñooñam neñ mooy seen candidat <laughs> waaye loolu dañuy wax rek ah. en tout cas dañuy wax rek yow tey yaay sama candidate est-ce que tax tax na nga nekk nga nga dem déposer. ah de tamit ay xam naa ne nga nekk seen candidat tamit a bari xam naa ne Khalil Soumaré mii ci la bokk ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. <laughs> mi ngi noonu ba tey ci mbirum Hadjibou Soumaré la ñuy daal di dese nii Abdoul Mbaye yéey na ci yaa bi moom nag ma ngay daal di ñaawlu ana bi nga xamante ni moom la ñu tegee loxo di Cheikh Hadjibou Soumaré waaye nag ma ngay xam ne ni mhm. kii di Hadjibou euh, Soumaré dafa daal def benn juumte ginnaaw bi nga xamante ni lu nu mel publier na ko ci Twitter mu ne loole warut woon ba tax na daal jàpp na ni juumte boobu la daal di def waaye nag ma ngay ñaawlu jàpp gi nga xamante ni jamono juñ toll nii mhm. euh, jàpp nañu ko ñu àddu wax ci leneen ca màggalub Daaru Muxti la ñuy daal di dem ni ki démb la ñu ko doon amal ci loolee nag euh, Euh, mm, marabu bi di wuyoo ci turu Serigne Modou Kara Sylla daat nay yàbbi ci ab Serigne laay wax da ngeen ni ma photo leen a gay ani Serigne bi génneel ma fii génneel génneel voilà xam naa kon euh, bokkul ci kii bi ñu ngi jéggalu bu wér a wér waaye moom nag sëriñ boobule dafa daal ko rek ci réew mi ak anam bi nga xamante ni moom la ñuy daal di doxee waaye jëmale ko tamit ci seen daaru murti boobu mhm. ak euh, gi nga xamante ni ñu ko fay daal di am moom nag ma ngi dut baaxaamu tuuma président Macky ba koy amal kii di Bougane Gueye Dany ak Ousmane fa indi seen euh, addiya waaye tamit ñëw nañ fa ngir rek nemmeeku boobu lay màggal mu ne nag njiitum réewum Sénégal dafa mel ni daal askanu daaru murti dafa am lu ñu ko def ba tax na saa su nekk bu ñuy mhm. amal ma seen yu ni mel duñu ko daal gis waaye yemu ca na na fa effectivement na fa ne ne eh, tamit eh, jébbal na ko àddiya bu duuna duut eh, ah, Sonko tamit ah! pareil ni daal ñoom ñooñu lee lu ñu ko def moom nag ma ngay di xam na ni hmm. jamono ju ñu toll ni nag président Macky Sall jaay doole gi nga xamante ni mi ngi koy ni politique bi dina ko na ko daal di dakkal wa ilaa rek ñoom ñi le nag jamono ji ñu toll ni dinañ daal di ci ay mbiram mu nekk ki nga xamante xamante ni mooy Serigne Modou Kara Sylla mu daal di yëkkati kàddu yooyu noonu ci euh, diwaanub euh, diwaan euh, sore wut ak lool ak fi nga xamante ni mooy Darou Mouhty. léegi bëgg naa la laaj sànq loo waxoon ci Abdoul Mbaye Abdou Mbaye waaw Abdou Mbaye dafay ñaawlu euh, li nga xamante ni moo moom la ñu teg ki nga xamante ni mooy Soumaré Hadjibou Soumaré di xam na ni daal eh. ah, jamono ju ñu toll nii euh, def nañu ko garde bi mu ne loolee nag daf koy daal di ñaawlu ndax nag jàpp na ni hmm. euh, jarul woon ñu koy def garde bi waaye nag ma ngay daal di xam ne ni kii di Soumaré hmm. dafa daal di am ci benn njuumte bi nga xamante ni def na ko ginnaaw bi nga xamante ni mbir mi jël na ko publier ko mu ne publication boobu nag dafa hmm. warul woon tax na moom mi la jàpp ne daal loolu mooy njuumte bi nga xamante ni def na ko yow kañ baax ma liiral affaire bi dafa s'il existe aucune base sérieuse motivant sa question <laughs> qu'il qu'il s'en excuse publiquement, et que cela serve de leçon mm-hmm. le placer à garde à vue certain et inutile mm-hmm. s'il n'existe aucune base sérieuse mm-hmm. motivant ces questions qu'il a s'en publiquement et cela servit de leçon le le en, garde, à vue reprocher le Sénégal d'un régime de terreur mhm. euh, Ibrahima Sow Ibrahima Sow nee na moom Abdoul Mbaye mu ne Abdoul Mbaye lan <laughs> kenn xamul fu mu far <laughs> bu mu sonn sénégalais yi. <laughs> ah moom man ah noon laa ko mën a waxee di ndax ni mu ko ni mu ko bindee moom ko wax ci télé <laughs> kon ni mu ko bindee sañu ma ko wax ci télé euh, wax ci leneen ba tey ci mbirum euh, people la ñuy daal di dese ni Amina Poté nekk euh, animatrice foofu la ca TFM jamono ji ñu toll nii nag benn émission bi nga xamante ni ma ko doon def ca TFM damay fàtte sax tur bi jamono ji ñu toll nii nag ñu ngi koy lancé ci réseaux sociaux bi ginnaaw photo boobu nga gis nag mu toog ci canapé bi di animé émission waaye nag li choqué internet yi mooy anam bi nga xamante ni soloo na ko comme ni ngeen ko gisee noonu euh, euh, lépp mu nekk ci biti mu nekk mbir bi nga xamante ni jamono juñ toll yi daal eh, ñu bëri ñu ngi ci eh. yëy yàbbi mu mel ni nag eh. duguleet lu ni mel du ko dal ndax à chaque fois dañuy nemmeeku ci moom façon colin mm. bi nga xamante ni peut-être dafay ñi nga xamante ñooy internet yi ba bu ci jógee dañu koy lancé bu baax ci réseaux sociaux yi mm-hmm. Mm-hmm. la pare na Sénégal mm. jour dañuy gis ñu solo lu gën a bon li Amina Poté sol. ah non non non non en fait ne ma di ko défendre chaque jour dañuy gis ñu sol lu gën a salté lii ngeen baal ma ci kàddu gi te bu ñu nekk fi ñu ko sonal mais kii elle est bien assise léegi ki ko doon filmé xanaa du moom la war waxal moom mi nga xam moo ne fàgg caméra bi ko génne xanaa amul ay amul directeur amul directeur mais attends mais il faut aussi qu'on que l'on accepte à des gens ñi nga xamante ne ñoom dañuy yëngu ci seen wàllum domaine seen moom man mosuma gis am am Amina Poté waaye de la boppam. Mm-hmm.

mais bu ñu nee demee ba wax télé kilifa da lay seetaan. Mhm. mag da lay seetaan. xale mhm. daf lay seetaan te mhm. ñooñu ñëpp ak lu ñuy jàngee ci li ngay def. donc li rafetul ci image du Sénégal ñu euh, ñëf ci ëpp ay ay ay ay zéro <laughs> zéro yaa wax lii. la wax. <laughs> bi yaa ko gis. paas. du ma paas de nga ne li mu sol dafa rafet. ok d' accord en tout cas euh, vraiment ku mën liggéeyam la ku mën lu muy def la d' ku mën lu muy def la mais euh, vraiment na xoolaat. ñu xoolaat euh, ni muy ni muy ni muy solo vraiment am na solo en plus am na doom bi nga xamante ni ëppal na fukki at ak juróom donc euh, yi yenn yi ma wax dëgg fa yàlla man personnellement dama ko bëgg mais rafetlu ma lu ni mel. Mhm. ñu àddu wax ci leneen euh, ci mbirum chirurgie la ñuy daal di waxee la ñuy daal di waxtaanee kii di actrice bi ñu naan Léna Gueye moom mi la nag jamono ci ñu toll dafa yóbbu fa mbaxana doon ne benn benn animatrice bu nekk ca Seneweb ñu koy woowee Eva ba xam nga di ki ñuy waxal nii sama mag la su ma mënee Euh, bokk na ci ñi participer ci sama sama carrière maanaam ñu ma ñi ma formé. waaw moom lan moo koy xiir mu wax ne saa dafa chirurgie rek. Eh? moom Eva mi d' ci benn émission bi nga xamante ni ñu ngi ko doon def foofu la ci diwaanu Seneweb Eva dafa xamal ni daal kii di Léna euh, euh, li nga xamante ni moo jëm ci opération am ci wàllum fesam mu ne nag euh, nii ñu ngi koy lancé ci réseaux sociaux yi ne rek rafetul ni na mu meloon moo dàqoon ci loolee nag ginnaaw bi nga xamante ni mbir mi wër na àdduna. Léna Gueye moom bi dafa daal di décider daal di koy porter porté à plainte mu nekk mbir mi nga xamante ni nag man Eva personnellement dama ko xam parce que sama grande la en tout cas nit ki ci li ngay liggéey mm. ci ngay juum mm-hmm. ndax amaana peut-être ñun ñi jàpp nañu nekkul opération mais dafa nekk li nga xamante peut-être dafa këfalu dafa sol ay hanches nga xamante ni <laughs> dafa kii xam nga te nit loo amul preuve bu ci bu ci bu ci dugal bu bu ci ah yooyu yàb bi xam nga parfois da ngay wax dara fekk amoo ci preuve da ngay gis nit rek donc ma amee fu ma koy blâmer foofu laa koy blâmer parce que dara leeru ci man leena tey dama koy gis affaire yi toll nii gis benn vidéo boo xamante nii doo gis dara donc daf lay wan que ni peut-être mën na ko mën yoon di nga wax preuve yi wala ah, dara en tout cas jamono ji daal yóbbu na animatrice bi lee xam naa ne di gay moom taaru taaru na de taaru na de waaye macha allah donc xaw ma chirurgie moom lu mu koy doyee. ah, ah bëgg dafa gën a bëgg a tàmbali. ah déet déet non kañ man kañ mhm. la gis la ci loolu doole yàq ko. Ah, moom moo ñu fàttali mu nekkoon ñaareelu Balla Gaye ci ay jamono. Ah, jamono ji ñu toll nii nag dafa gën a taaru waaye dafa xaw a am lu mu yokku te ngaa te ngaa bañ a dugg ci cas boobu. non ma si de parce que li ma wax man mm. leer na man man gis. ne ñaareelu jamono ñaareelu la aaw. moo nekkoon ex ñaareelam la woon Balla Gaye mu nekk mm. ex mm. ñu toll nii daal ci réseaux ah, dafa xaw a dafa xaw a eh, génn xaw a génn mais ni mu génnee xawuta naturel ba na ñu bëri jàpp ni dafa yokk ak bi nag ni nekk sama mag la <laughs> ay dafa def opération bu raté mm. ba tax na daal jamono ji toll nii loolu yóbbee na ko moom mi leen di li bon est-ce moom tamit su nekkee am na ci ay firnde bon na ko génnee c'est aussi ah, tamit bon je ne pense pas que tamit quelque euh, aussi professionnel que qu'il puisse que muy wax muy wax noonu sans pour autant xam ci dara wala bon parce que man euh, personnellement gis naa ko ah mais bon tamit ñoom ñoom ñoom nag xam nga la laa di reproché des sama xarit sama mm. concert ñu def animation affaire yi noonu ñoom nu leen lu leen sentiré rek noonu koy wax te xamul ne des li ngay wax yow mën nga nekk animatrice de mais ci média ngay liggéey lay wax média lépp loo a a wax nanga ci mën ndaw rek mën nañ la ci yóbbu ci yoon. Ah, alors que boo ci amul preuve loolu mën na la. waaw ah, waaye waaye leena itam leena garaawul rek na bàyyi mu set. ak lu mu ci mën ci doon waaw na ko bàyyi sama mag la. vraiment leena leena Guèye Guèye Ndioro Bassi vraiment ñu ngi lay ñaan daal plainte bi daal vraiment ah waaw nga bàyyi mu sedd rek garaaw yow moom te naturellement belle. ñun ñun say fans yi kontaan nañ ci yow. waaw ah, vraiment bul bul topp bul topp bul topp wax yi ñenn ñi rek. vraiment jéggal ko rek bàyyi ko noonu jigéen bu rafet lay bañ a gis yow. kan ci man ah bët lu rafet la mën a gis. sama benn xarit daf ma daan wax. da ngaa woor xanaa yéen seen seen woor déedéet man li may li may wax nii du du baakaar de. Hmm. sama benn xarit boobu moo may déglu dafa ma ne bët. Hmm. lu rafet la mën a gis. Hmm. te di ko apprécier di ko ñaan chaque jour mu koy gis. ndax su yàggee gis lu ñaaw ak lu métti su yàggee day gumba. te wax dëgg yàlla moom wàllum sisite yàlla yàlla jékkal bugguñu kenn. kii ko kenn am ko daal vraiment. d' ñu àddu wax ci leneen moom la ñuy jeexalee xibaaru bees bi la mbirum kawteef la nag xam nga yow da bëgg kawteef te foo jaar parfois ma lay indil kawteef. benn benn soxna bu jigéen la. Mhm. Euh, moom nag dafay daal di xam ne ne jamono ji ñu toll nii dafa daal di nekk ci ay problème yu méttee métti te ku ko waral du kenn ku dul ex jëkkëram ginnaaw bi nga xamante ni ñi ngi doon sëy ñi ngi nekkoon ci seen biiru néegu sëy. Eh. bu ñuy amal li nga xamante ni maanaam bu ñuy sëy histoire bi ngay wax ni maa ko xam. mi noonu daf dañu doon amal ay vidéo ci biir sëy bi mais loolu mi ngi xewee ci biir sëy bi. est bi que ni ñuy wax nii. Mhm. am na il y a trois mois d'accord ni ñu koy xam nga tax ñu indiwaat ko. Mhm. femme boobu dafa dem di dénoncer. Mhm. fee yi nga xamante ne moo indi kawte fi naan jëkkëram moo dugal. vidéo yaak affaire yooyu noonu dafay jaay boppam alors que nee na yi bi ñu koy amal fekk ñu ngi. moom il faut ñu xam leen. gis nga ni da ngay suturaa sa bopp. man dama <laughs> man dama contre nga am jëkkër na nekk sa jëkkër. Mhm. mais vidéo xamoo fu muy dem. te sëy dafa garaaw ni muy neexee tey noonu lay naqaree suba te góor ñi benn instant seen xel gàtt na gàtt bu nga xamante ni bu la meree am ci yow lu daw suñuy génn di la wili pande donc nañuy arrêté man appel vidéo même nga nekk si biir néegu sëy di sekk ak sa jëkkër di vidéo loolu dama ko contre ah loolu àdduna bee toj non en fait intimité moom kenn ko partagé mi ngi noonu tey du ko partagé pourquoi lan nga koy doyee après dafay xew na na yam ci néeg ba ak ca lal ba après su jeexee jeex na mais pourquoi vidéo yi souvenir lan lan lay. mën te bizarrement bizarrement nag bizarrement man lu mu gën a métti mooy cas yi ni nga nekk di ci waxti nit di la ko nit di la seetaan. Mhm. di laa la wax soo ma dégg déggaat lu mel nii. xawma xeetu jonge la xawma la ñoo bëgg lu leen neex mais <laughs> ngi yàq seen àdduna parce que jëkkëram ji jamono juñ toll dafa jël vidéo yi tasaare ko est que jëkkëram moo ko tas ah, mm-hmm. est que xam nga ñoom ñaar am nañ doom mm-hmm. ñoom ñaar couple am nañ doom mais jëkkër ji nee est que doom jooju moo ko jur ndax moom ko takkee da ko takk six matul sax sëy mu am doom xay cas bi déggoo ma xanaa man su nekkoon émission bi fi muy yem nii man mën naa la expliquer cas bi ba fu muy jeexee dama ko topp. Jérôme yaa da ko topp kaa ci àdduna. man may fekk <laughs> def katu def katu fête de weer bu mag. Oh, <laughs> en tout cas nekk naa mais fi mu commencé nii. Mhm. xaju fee yem ndax mbir mi dama moom lañ ko war a yóbbu ci kanamu yoon. waaye émission parce que am na ay yeneen yi nga yeneen yi nga xamante ne euh, mu ngi ci mu ngi ci biir dossier bi. Mhm. yow lënd yow ñëwal yow lënd ñëwal. incha allah dinañ topp leen non dama lay bàyyi nga toog fii nii. man ma ñëw remplacer la foofu noonu. dañuy toppandi euh, kawteef bi en tout cas lu doy waar la te suñu mbokku jigéen war nañ ci yeewu. vraiment ñaan sénégalais ci mm-hmm. nañu nañu fexe même seen jëkkër yi suñu ko bëggee ñu bañ parce que wóoratul àdduna bi moo toll fi nga xamante ni lu jëm ci wàllum intimité. Mm-hmm. bul vidéo bul laa téléphone def leen li ngeen def après su jeexee jeex. te tamit nga ñu ñaax jigéen ñi comme olof su jeexee jeex na. ba ñu bàyyi buxaaba yi ñuy dem <laughs> ñu nañ bàyyi ci buxa nañu bàyyi di dem ci buxaaba yi bu xaaba mooy njabarkat yi. na ba rapport la am ak histoire bi. dama lay ñëw damay ñëw rek nañu bàyyi dem ci njabarkat yi rek fa laa yem. <laughs> loolu beneen beneen affaire la après dañuy ñëwaat ñu incha allah <laughs> euh, suba la euh, waaw suba Sénégal Gambie. waaw xam naa nag est-ce que man du ma jël avion tey sax. dem dem Gambie dem fan euh, fee. Égypte man damay ragal su ma demee nag gars yi suñu xoolee sama sama sama passeport de soo ma aéroport du ma ko paase te xam naa su ma demee lundi su ma ñëwee du ma woo def émission.